Euh, bu ko defee ci biir euh, axe yi ko tënk bokk na ci axe communication am na ci biir axe su bonne gouvernance mais am na ci biir axe communication axe communication boobu dafa jëm ci population yi mais ko wax population yi wax collectivité locale yi euh, ba tax na kon bu ñu gisee initiative yu mel ay organisation de la société civile di ko jël duñ mën lu dul rafetlu ko te feexee xalaat ak ñoom nu ñu boolee lii lépp ci résultat yi nga xam ni Euh, stratégie bi war na ko war na koo amal ndax comme ni ngeen ko xamee euh, euh, nag am na ci wàll ci wàllu coordination bi ak wàllu pilotage bi waaye acteurs yëpp ñoo ci bokk ku ci nekk fa ngay liggéey ñu xam la nga fay liggéey ci wàllu xeex guerre ak fraude waaye bu ñu ko xamee ñu mën koo articuler ak liggéey bi nga xam ni moom la ñuy def ci cadre pilotage stratégie boobu loolu moo tax kon initiative bi nga xam ni mooy créer ay unité pilote ci collectivités locales yi pour ñu mën a jàngal nit ñi euh, lan mooy euh, euh, lor yi nekk ci corruption mën and ak ñoom xex ko mën def sax diagnostic yi vulnérabilité yi loolu dafa am solo ci ñun té inshallah buñ ko capitaliser dañ ko mëna bolé lépp ci liggéey bi nga xamni ni ngi ko fas yéene ànd ak ñi nga xamni ñoy organisation yi ngir mëna jëlé corruption Sénégal. Beaucoup d'activités sont programmées avec les collectivités locales donc voir déjà qu'un partenaire comme euh, Enda Ecopop s'est lancé euh, dans cette initiative nous euh, réconforte et appelle de nous une meilleure collaboration avec l'ensemble des OSC pour pouvoir savoir ce que chaque OSC est en train de faire dans le cadre de son plan d'action, mais voir aussi comment mutualiser tous ces efforts-là pour l'atteinte des objectifs que nous sommes fixés dans le cadre de la stratégie. Il ne s'agit pas d'une stratégie de l'OFNAC, c'est une stratégie nationale. Où l'OFNAC est un acteur. C'est vrai que c'est l'acteur principal, c'est l'acteur qui coordonne, euh, c'est l'acteur qui, euh, qui, porte, euh, mais tous les autres acteurs ont leur place dans, ce, dans cette stratégie-là. Et nous pensons que c'est en mutualisant les efforts que nous pouvons atteindre les résultats que nous nous sommes fixés. 2024 n'est pas loin. Nous avons 85 activités à mettre en œuvre. Dans le cadre de ces activités-là, il est sûr que l'OFNAC ne va pas tout porter. Donc euh, l'essentiel des activités vont être portées euh, par les partenaires. Et qui dit partenaires, dit les organisations de la société civile. Euh, ce que nous attendons de ENDA, mais ce que nous attendons aussi d'autres acteurs.